jërëjëf mbokki internet ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen wax ci ramadan mubarak delsu nañu ak yéen su Dakar Actu ni ñu koy defee at mu ne ak aljumay koor ki koy présente di seen mbokk buur géwél ànd ceeg sama xarit sama soppe Imam Bachir ànd ceeg toute la rédaction bu Dakar Actu ci ay thèmes yu am solo tey nag ñu ñëw ak yéen ci beneen waxtaan di suñu deuxième numéro concernant li nga xamante ne que moom mooy weeru koor gi imaam maa ngi lay nuyu. الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه غر الميامين Mhm. wa man tabi'ahum boole nuyoo bi imaam ku ne xam na ni macha allah yàlla dimbali nañu ban woor fukki fan yu njëkk yi ba tey moom fi mel nii moom Cissé Cissé yi moom fi mel nii seen xel commencé naa dal ndax daanaka pàcc bu njëkk bi jàll na te ñu ne fukki fan yu njëkk yi euh, am na lu ci sama borom diggee waaye li ma gën a ñor rek ci question bi moom mooy ñi nga xamante ne koor Sénégal damay wax ne comme ni ñu ko doon waxtaanee sànq ma ak yow xam nañu luy yàqu koor waaye xamuñu luy wàññiw yiw wala luy sàcc ay tuyaaba ak lu koy wàññi ci koor. ci ci yàlla waaye foofu ndànk par ndànk. ñoom dañ ko yëg da naa fukki fan mais an sa tiyaaba ci fukki fan. te lépp yàlla si bëggaat rek wala am na ci lu ci ruusal loolu di ko ruusal nag loolu la ñuy ay sàcc yooyu day mat ñu di ci yeete. di ci njëkk ci sàcc yooyu nga xam ne mën na wàññi lool lool lool tiyaabaay ko rawatina ku mel ni suñu réew mi di Sénégal. télévision yi ak site internet maanaam. مسلسلات yu amul àpp série yu amul àpp. waaw série koor programme yu amul àpp yoo xam ne. laa faayida fii maanaam mënoo wax ne lii mooy importance am. série yu bëri yoo xam ne mënoo wax ne lii mooy importance am chaque jour da ngay gis ñoo xam ne série yooyu dañ koy topp dañ koy topp dañ koy topp ba. da leen di yàqal sax jàmm te léegi sax li ma seetlu imam sax mooy sëriñ léegi sax saaga yi dafa dafa dafa bari ba démb maa ngi def constat boobu. boo seetloo léegi moo tax yooyu gars yi gis da ngay gis concours bi lu am solo lu amul solo ay jàngale ci biir nag. Hmm. jàngale solo. waaye waaye waaye waaye comédie bee cëpp yow yaa yi maam gën a bëri. comédie bi moo cëpp du dara lu dul luy reeloo nit luy luy luy dugal nit ci loo xam ne daanaka amul njëriñ. Hmm. bu ko defee loolu dañ ci dañ di jël temps bu bëree bëri nag. Hmm. temps bu bëree bëri boo xam ne non seulement temps boobu perte nga ci loo waroon a tudd yàlla loo waroon a jaamu yàlla après li muy def ci yow mooy di di la dugalaat ci loo xam ne sa yoon nekku ci. Hmm. c'est-à-dire boo wooree dañoo gudd ni sa biir bi wooree ci bañ a lekk bañ a naan sa war a bu wooree ko ci bañ a sëy sa cër yi ci des dina ko gis nga yenn pensées yi sax yenn xalaat yi sax boo wooree day nekk. Hmm. lépp loo xam ne dafay dàppuwante ak ragal yàlla dañoo bëgg boo wooree lépp looy concentré wu rawatina ci bëccëgu gu yi na doon loo xam ne da lay tegtal yàlla na na doon loo xam ne da lay euh, euh, euh, ci yoon wi nga xam ne yoon bu baax. kon programme yu bari yi ci ci ci télé yi te daanaka njëriñu l'islam amul bu dee seetlu nga li may wax. dëgg la ay affronté ay téesante ay confrontation dafay mel ni sax balaa ñuy gën a man a foloo wala balaa ñuy gën a mën a uññi ay sutura wala balaa ñuy gën a mën a kaa wala balaa ñuy gën a mën a publier ay scandale ñu toll ci moment boobu. Hmm. parce que dañuy xam ne nit ñi dañu am jot dañuy bàyyi xel média bi au lieu que foofu ñu profitoo jaamu yàlla di leen jegeel lu am njëriñ mais dañuy gis ne contraire bu mooy léegi nag loolu rythme képp ku ko topp di nga war ne am naa fukki fan di war ne am naa ñaar fukki fan di nga war ne am naa 30 jours fekk bu ñu évalué woon say tiyaaba yooyu sàcc na ko tey. 40 pour beneen sàcc bi nga xam mooy sànq alal ak sànq waxtu ñaar lu yomb rawatina suñu penc nii ci kaw loolu mooy lan da gis koo xam ne bu wooree par exemple dem na marché soxna si la wala waaye soxna si la. lu am njëriñ dana dugg lu amul njëriñ. Hmm. moom daal lu mu romb jënd bu rombee tànn bu fëree jënd bu rombee fee nangam li muy te wóor na ko ne li muy jënd nii yëpp doyewu ko daal. xel mee koy commandé bu xiifee. Hmm. parce que boo xiifee loo gis sa xel nekk ci rek nga ramassé yow fa nga koy soxlaa hmm. ñu wooree da ngay gis lu ñuy bëgg di dem ci marché yi di wëreelu di taxawaalu parce que am nañ jàpp nañ ne am nañ jot léegi nag nga passé foofu temps bu bëri plus yàq fa alal boo xam ne du la jëral dara dara dara ci sa fo or dañoo bëgg booy jug di demee rek nga doon fàq. Hmm. na nga programme ne lii laay uti lii lii laay def bu paree parewaat naa ci mu ñëw nekk ci li ma war a def mais woor àndut a taxawaal te boo seetloo ñu bari dañuy gis ne loolu dañ ciy sànq seen temps. nañu nañu nañu nañu dàq koor lañ koy tuddee en quelque sorte léegi. xëy na façon bee changé rek quoi. Euh, buur man mosuma nangu boobu dàq koor parce que yàlla def na dama leen dama leen jox koor pour mu jox leen ragal yàlla. Hmm. mais bu ñu dàqee koor fu ñu jëlee ragal yàlla. duñ ko am koor dañ ko war a xëcc mais waruñ ko dàq loolu erreur la. bokk na ci yu fës lool ci sàcc yooyu ci Ramadan mooy sànq waxtu boo xam ne rawatina jeunesse bi dañ koy jaaree ci ngay guddi gi yëpp. waaw waaw dañ ci dégg ci ñoom sax ku naan la damay xëdd tëdd yeewu ndox cest à bu ci bëccëgu koor bi yëpp guddi gi yëpp nga passé ko ci ay plaisir ci ay seetaan télé ci ay communication yu amul njëriñ ci ay nangam ci ay nangam ci ay nangam yow léegi. neenal nga tiyaabaay naafila guddi neenal nga tiyaabaay jàmm yàlla ci bëccëgu koor yow sa koor gi loo fa des. xanaa xiifal. loolu lu mel noonu moo tax yonent bi daan wax xam ne woo la lu lekk ak naan ak sëy sa woo ci dudu xiif ak maay surtout nag ci ci jeunesse bi loolu lu mat a bàyyi xel la gis nga woor dañoo bëgg ni ngay wooree bëccëg gi guddi gi nga koy dundalee ci jaamu yàlla fu ñu toll nii guddi goo nekk ci ramadan ëpp na guddi guddul biir ramadan ni nga mën a fàggoo ay la ci jëmmi woor bi ci bëccëg bi man naa am sax bi nga wooree liggéey bi jàpp na la sonn man naa am azkar yu bari mën naa am jàng alquran boo mënul jàng téere bi déglu alquran man naa am mën naa gëstu sa xam-xamu diine pour yokk ko bëccëg gi doo am temps mais guddi googu jot boobu ngay am imagine toi nga ne guddi gu nekk diiram dinaa mën benn saar alquran mhm. imagine toi guddi gu nekk ñu ne dinaa gëstu ci sama masalaan diina benn masala boo xam ne danaa ko xam maîtriser ko noté ko ba du ma ko ko laajte image toi nga ne danaa gëstu histoire yu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam-xam jege na la internet mu ci sa kanam foo mën a nekk wallaahi nga moyen bu ne pour yokk sa xam-xam yokk sa gëstu même bu ajuwul ci sa wàllu diine même sa wàllu liggéey temps boobu ngay am mën nga yokk gëstu yokk sa xam-xam parce que loo nekk rek xam-xam dina ci gën a dimbale mais da ngay gis ne déedéet lu gën a bari dañuy veillé dañuy foog foog mooy ñàkk ña la guddi mais duñ ko def ci lu am njëriñ ci seetaan lu amul solo lañ koy def ci ay jeux lañ koy def ci waxtaan yu amul app ci garan place yoo xam ne rien du tout ba fajar mais mais man imaam man xam nga mooy sama problème pour man sénégalais bi day koor day woor ndax environnement mooy mag laa mu ñu maa ñàkk bañ a woor ñu di ma ko xoole wala di ma ko xase mais critères yi tax dëgg-dëgg may woor wala jeexintal yi koor def ci nit boo xoolee. loolu moo tax suñu nee naa la buñ tollee ci weeru koor te sax na ne dañuy tënk seytaan yi ci la scandale yi di a man de loolu jaaxal na ma. xuloo yeeg sànniwante traag yi yi sax ci lay gën a bari. ñun suñu koor yàlla bi ñu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina mar a tax mais la'allakum tattaqun mais ragal yàlla ko jox xiif ak mar boobu yoon la bu da doon yombalal yenn topp yàlla yi di la jafeel yenn mooy yàlla. Hmm. mais da gis ne ba nga xamee ni ñu ngi woor mais woorewuñ li ñu war a woore résultat wu ko man ndax man imaam man li ma jaaxal hmm. booru ko jotee nit ñaa ngi saagante ay ndey ci kaw tali yi di daggalante ay ndey ci biir supeer yi di xeex ci biir kër yi heure ndogu xëdd bu jotee gone yi di ko fooye mag yaasu yor ay ndënd ak i gurtu rëg rëg jóg leen waaj waaj jot na jóg leen waaj waaj maanaam dafa dem ba aspect folklorique bi ëpp doole ci koor ka jaamu yàlla. est-ce xam nga loo déggee ci loolu bu war àndut ak yenn yenn yenn débat yi mhm. bu war àndut ak yenn détails yi bu war yenn coow yi bu baatu saw mi muy jógee ci assumt maanaam boobu la njëkk a yor ci asl mhm. jàngal Seydina Mariam alayhi salaam si nga nadartu li rahmaani sawma falan ukallima al-yawma insiya woor dafa war a ànd ak noppi ci lépp loo xam ne naka su dul noonu mais da ngay gis ne ñun dañuy noppi ci lu baax bu ñu wooree mhm. maanaam néew nag koo gis ci koor gi muy profité jàng alxuraan profité jàng ay askaaram jàng ay xasidaam bu ko mënta jàng mu déglu ko profité ci yu baax yi profité wax luy defar ak mbokk yéwénal diggante yi nga ne pratiquement sama famille danaa fexe ba koor gi balaa muy jeex ma dox ci diggante yi mu yëg ne am na ay rëq-rëq yéwénal ko buy ay sëy la buy diggante ay frère rek nangam buy diggante ay wajur ak yooyu xeetu wax yu mel noonu lañ bëggoon nga di ko gañe ci koor mais ñun contraire bi lañ bàyyil xel li ma lay wax ci débat yi dañuy jël temps bu yaatu ci biir kër yi ci mbedd yi. télé yi ci barab yu bari. wax yi yéen cee wax bu ñu jural lu dul ay bàkkaar seetal li ma la wax bu ñu wooree lañ dàq jëw puisque dañuy am temps. bu ñu wooree lañ dàq rambaaj bu ñu dooree bu ñu wooree lañ dàq wax lu suñu yoon nekkul bu ñu wooree lañ dàq siiwal secret yi puisque temps boobu ñu am. loolu moo tax ragal yàlla li nga xam ne moom la koor di def ñun ñu bari ci ñun duñ ko am puisque dañoo wàcc yoonu ko te loolu lu mat a bàyyi xel

néew néew jour bi dana jël quatre heures de temps ba cinq nit ñi bu ñu wooree am temps yoo xam ne ci téléphone bi dong dong lay concentré wu. Mm-hmm. ak lan lay def ci téléphone bi bu doon day jàng xam-xam bu doon mu ngay jàng lu mu yokkee xam-xam ci wàllu liggéey mais boo soolee yëpp ay connecté fii lii fii message lii statut fii téesante bi fii sànniwante xeer bi fii mokke bi fii comédien bi yooyu ngay topp yooyu ngay topp ba sa temps bi jël loolu mu ngi lay xeñ tiyaar bay wax loolu mooy sàcc bu mag bi nga xam ne mu ngi sàcc si tiyaar bi fi loo ko yëpp na ci sàcc koor weeru promotion du xiifal ak maral waaye dañ naan la gaawal di yëkkati sa alal di joxe parce que fi ñu toll nii sarax boo def ci biir koor moo ëpp doole fuuf sarax boo def ci biti koor umra boo def bépp naafila boo def ci koor wa xataa tey nga demoon umra ji sax ci biir weeru koor sax na ci sunna yonent bi ne am nga tiyaaba ak ak guñ ñun c'est-à-dire weeru koor weeru promotion gaawal yëkkati sa alal joxe foofu nag bu la fa nay duggee yow da nga woor boo waru koor wi jeex mënoo wax ne lii mooy jëf acte boo xam ne jif la ju ju am solo muy alal ju nga yëkkati def ko ci néew di doole wala miskin wala ñu ko aajo te tout damay faral di wax ne lislaam <coughs> ci ñaar lay taxaw julli ak joxe mm-hmm. nga boole ñaari tànk yi doxam ñoom doo ko doon jullit piir ab jullit day nangoo julli waaye ab jullit day nangoo yëkkati li am di ko jox ndam tene rawatina nag buñ tollee ci weer yi gis nga ñu dugg safara sama borom fekk leen fa di leen laaj lan moo leen sóob safara gi lu ñu wax قالوا لم نكن من بكل يوم تي ويدلي واي ولم نكن نطعم المسكين داو جوخ داو لا المسكين ديمبل المسكين ديمبل الفقراء وي لو باخ لا تي اب ييب واي بو تولي تي ويرو كور تيام دي بغن بري لغي نك بو تولي تي ويرو كور اه دك بي دفا دير نانام نا آه، دك بي نيهول واي واو تا فك te bu ndogu jotee sax nga dem ci daay nga dem ci magasin yu magge ak pourquoi sa xëdd yi amul ak wétti di nga seet ñew doon yi borom man de man de yaay maam damay romb gaañi ci fi ñuy jaayee ndog yi espace euh, yu mag yi di nga gis ku pañe boo xam ne la mu cay jënd ci ndogu mat na vingt cinq mille wala trent mille te ci buntu magasin ba muy génnee romb na fa ay miskin ak fuqaraaw yoo xamante ne ko ñu ngi toog tey te amuñu lu ndogu. bokk na ci sàcc loolu jaaxal am nelaw bu bari ci xool. Mm. xam nga ku woor sonn mos nelaw nangam nangam dimbali ko ko yàqul dara mais taab bi ëpp ci sa bëccëgu koor bi nga nelaw xam nga ban moo ci gën a daan mm-hmm. boo xam ne daf la yóbbu faat waxtu julli est-ce que xam nga ne woor fanweeri fan yëpp tolloo ko ak julli benn waxtu farat imaam bul wax li wallaay war a bi xam lu tax nit ñemee woor pratiquement te julli journée bi yëpp néew na ci woorkat yi rawatina ci ndaw yi ñu julli tisbaar ak waaw. ba bari nelaw nelaw nelaw ba jant bi lant rek. nga ni julli benn waxtu dama ne la woor fanweeri fan yëpp laa la wax wecce wut ak benn rakka farata ci julli lu tax nit ñemee woor te du julli ko. waaw mais différence bi lan la. mais nit dana am ngànt woor ñu tekkil ko ko mais ngànt julli doo ko am. dëgg la. loolu yëpp dëgg la yaa fardatul imaam. dëgg wér. julli daa nekk ci biir woor. ba nga kàmbaree ba fi nga sën mënee da nga da nga fi lekk da nga fi naan da nga fi sëy da nga fi def leneen aj maa nekk ci biir julli.

mais da lay jural ñu wàññi tiyaaba yi nga xam ne moo amoon day mabbu ay jëf yu baax yal na yàlla mosul lu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seetlu nag buñ tollee ci jamonoy koor loolu nii mu ñu yombe ñàkk julli carrément wala ñàkk julli ca mbooloom rawatina buy julli tisbaar ak julli takkusaan moo tax nañ di woor tey wooree nit ñu ko sant gis nga mbir boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñuy dig ci tiyaabaay koor daf na ma man ma ramadaana lay wax waxul man saama ma mooy nga defee koor gi niñ la ko diggee buñ ne la aqimi sola mooy jullee niñ la ko santee charte yi na ñëw ponk yi na ñëw farata yeeg suñ ayoo buñ ne la man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dambi wa maa taaxara mooy koo xam ne koor gi defee na ko niñ ko diggee c'est-à-dire yeete bi ma bëgg a def foofu yeete bi ma bëgg def foofu surtout boobu mooy ñu xam ne koor du bàyyi lekkal na mm-hmm. koor du nelaw bëccëg gi ba mu jeex seetaan télé guddi gi ba mu jeex koor du topp ay débat yu amul koor du ay garam da nga cee war a firi ndagar wala géej ndagar wala géej caaxaan gi yokk sa ma ne ko ndagar wala géej caaxaan ni bari na ci lool lool lool lool lool imaam wax dëgg yàlla yow tey wax alquran ñu hmm. a profité ba mën ci lire man temps bi bi ma et man moodu bi ma gis léegi imaam comme les gars ñu ngi koy def ay émission télévisée euh, ponkalum jëmm di kilifa bu mag nga ni naa bàyyi ba weeru koor gi jot ma dem këram pour jëli ko mu wax ma lim man ci alxuraan te boo <laughs> te boo demee saar wa gën a gàtt ci alxuraan nga koy tariloo te amaana sax tari ba problème lay doon maanaam li ma ci bëgg a jo jàngale mooy koo xam ne dañuy kilifa nga wala ngay autorité tey war nekk benn exemple ci maanaam ci bëtu askan wi tey ci diine nga waroon ci am taxawaay. ba ki lay xool ci télé bi di la gis ne ah diw de kon ndakate jàmbaar la ci diine waaye dañuy ñëw teg la cere bi ne la ponki koor lan la nga jaxase kaar rek wala ñu ne la jàngal ñu war a aadiyaat dabaxar nga jaxase ko maanaam. dafa mel dañuy rabat sa diine quoi ci man sama sama xalaat. nga lan mooy koy faral di wax muslim jullit paale mm-hmm. ci waaye gis nga jullit dafa war ci moom lii ay farata mu xam mhm. Sénégal ngay taxaw ñu ne pays la boo xam ne quatre plus ay musulman la mhm. nga taxaw seen digg ensemble dégg ko ne musulman la di waxee alxuraan nu mu ko neex nu mu ko neex te discours en français benn benn fër sax ñemewu ko def bu ko defoon boo moytuwul du baax ci moom maa maa gëm li nga wax discours yàlla bi constitution yàlla bi nga taxaw ci ensemble di ko waxee nu mu la neexee te dara du la ci fekk comme ay sabotage day mucc bu ñuy wër di dem ci kilifa yi di leen dégg micro xëy boo xam ne day soñ day soññee nit ñi ci ñu ñu ñu yokk seen gëstu ci alxuraan mais damay gis nañ sax lu ci gën a bëri ay sabotage bi léegi lay nduru parce que nit ñi nit ki amul kersa na la non man nag alxuraan man vraiment jànguma jub laa mais jànguma yow bu ne jullit nga koy nax wax yàlla am bac am licence am maîtrise te te te man amayata si saalu na bu yegg sax moom loolu wax dëgg yàlla ay tappale la tey bari na kuñ jox constitution réew mi ñu dégg ko ñu ne ministre bi yow lañ jox justice wala yow lañ jox culture wala yow lañ jox nangam nga xam ne yow la yooyu la ci aju ci ay xam-xam non kenn mënut laa wax la mu aju ba jeex nga mën a maîtriser lépp buñ ne la sa farataay koor lu ko yàq mënoo ko li boo woowul oustaz bi gaaw léegi mu wax la bii bii la du sotti yu ci bari bu leen gars yi waree seete la ñuy di jënd ay kii ñu taqale leen nangam buñ paree jàllar nañ koy sa bopp dëgg la am na ci ay système yu baax maa ngi gis ay ndaw ci internet maa ngi koy seetlu daaw ay Idrissa Gana Gueye mhm. live yooyu ñu daan def di tariloo yéen mbëri yenn mhm. jours yi mhm. mais yooyu mu ngi leen di soññ bu bu yàggul ku ma ci mujj gis euh, Modou Lo je pense Modou Lo ci Baqara aayaat yoo xam wallaay ndeysaan man man man loolu na ma waaw waaw waaw waaw moom moom jàmbaar la ci diine li may wax yàlla euh, jàmbaar la sax ndax dem na imaam am mbégte bu ma hmm. gisee koo xam ne mbër la hmm. ak ñun bët bi ñuy xoolee mbër ñun nitu Mm-hmm. mu man a jàngee alxuraan ci tajwid man koo jàng ci saar yu kawe yoo xam ne bari na kilifa bii na boo xam ne bu toogoon dem na moom ba li ma ci soxla mooy mm-hmm. ban effort la def ban effort la ba jàng mm-hmm. ban effort def ko ba ah, diineem ko foofu ci sama kër nettali naa ko ñoom Babacar nii ñu sëlmal ma dégg mbooleem ñaan yi ñaan ci sunna mu di bi ñu sëlmalee ma di ko waar ci diina di ko waar ci diina aaya ba mu commencé mu àggale ko ma ne kii mu ngi naan li misli daf ma doon neex loolu même bu nekkee ci lamb nañ gëstu li ñu war a gëstu te xam ne loolu dañ koy passé suñ passé loolu loolu ñu doon gëstu ci diina moom la ñuy toogaat est-ce que li ma bëgg a wax mooy occasion la ci koor ñu yokk suñu yitte ci alxuraan parce que dem na alxuraan yi ngay gis Sénégal di ko defar non dinañ ci ñëw imam dinañ ci ñëw baama loolu ko fi tax a taxaw li mu li mu yokkee mhm. développé alxuraan xam nga maanaam pour bañ a génn ci modlo dafa am ku ko laaj mhm. euh, mu fekk mu di ko def ak suñu benn xar bi ñëw bës pour lutte bi Eh, bësu ko moom ci làmb tey moom moo du fi ko diine yegg tey ak alquran ne ko ku ne xam ne làmb fa ànd ak xeeti débat déb ak affaire yi dane ko dama koy bàyyi xam nga mbërum làmb mu le ni sama prochain combat du ma xëppoo saafara du ma takk gàllaaj du ma def nanga ma naam bësa ko lu tax mu ne ko shirku la sama diine daf ko daf ko bañ maanaam <laughs> waa développement développement ma ma ci sax benn jëmee benn mbër. mais hmm. exemple laa boo ko joxe. que ne nit ki nga nekk apprenti te terewul laa war a jàng alxuraan. Hmm. parce que da ngay passé loolu. nga nekk benn mbër nga nekk benn jour nga nekk benn leneen gis noonu ko ñoom Idrissa Gana Gueye doon defee. Hmm. mais a ñor loolu loo ko wax. poste ministre la jox député nga wala nangam mais loolu pour pour sa wàllu àllaxira yow loo ci pare. sa diine loo ci rafetal dara damay wax ne nag comme dañuy layee ñàkk jot dañuy layee activité comme occasion la woon bu rëy a pour ñu yeesalaat ci suñ diina yokk ci suñ xam-xam ci wàllu diina waaye surtout suñ diggante ak alxuraan surtout sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne danaan jàng alxuraan chaque jour mais nee na bu weeru koor terwaan Seydina Jibril day ñëw di defee moom ay émission ci alxuraan ñoom ñaar ñuy bokk di nafar balaa koor bi jeex rek kaamil bi daanu xoolal ñoom ñaar ni ñu mënee alxuraan bu ñu koy nafar weeru lëmm nga xam ne alxuraan yooyu am na lu ñu cay mais nee na weer wu njëkk bi mu mujj bi sax mu année bu mujj bi nafar na ko ak moom am ñaari kaamil tax yonent bi daan gën jox yitte alquran ci ramadan loolu am na lum ñu mën jàngal am na ñu bëggoon bëggoon a jàngal parce que moo doon suñu royukaay bëgg wax ab bu nax ci diplôme bu ne man ko am te parewut a man alquran mokkal ko xëy du farata ci ñëpp waaye nag man ci alquran lu dëgër loo ci man nga ba rafetal ko ba ko nam normalé loolu dana bokk ci li wane ne sa diine ñor macha allah waaye di jàngee alquran num la neex hmm. te français sujur ci sa kanam boo làkkee anglais anglais si jur ci sa kanam boo làkkee chinois sax am na ci ñoo xam ne chinois sax dañ koy lijjanti. dëgg la dëgg la mais benn saari alquran bu ñu mën a jàng mu normal amul mais yitte bi ñu def ci les buur genn wàllu genn wàll. bu ñu ko defoon ci liin xam lii macha allah yaa fadlatul imam imam Bachir toujours rek gis nga ci pertinence yi macha allah imam nag gaa ñi defe naa egsi nañ Cheikh Ahmadou Bamba Diagne moom tey yegsi na Cheikh Bamba tey loo tey loo indil gaa yi tey. Mm. Mm. Mm. mbégte bu ne mel lañ am ci ndaw yi nga xam ne ñoo mbokk ci récital Coran bi nga xam ne ren bi septième édition euh, ñu koy woowee grand prix Sénico. tey di euh, juróom-ñeenteelu bés bi kon euh, ñu koy amal King Fahd Palace. institut islamique ak yeneen i bërëb yoo xam ne. ndaw ñi dañ fay daje kon di tari alxuraan. Sénico nag di concours boo xam ne. dañ ci collaborer ak euh, fédération yi nga xam ne ñoo sept association école coranique yi faree ci Sénégal mu toll ci 724 association yi nga xam ne ministre de l'intérieur kon moo leen autorisé ngir euh, ñu seq euh, loolu di association bi bi jëmal jàngum alxuraan kon ci Sénégal ay mm. ndaw yu jugee ci région yu bëri moo xam Ndar la Diourbel wala Dakar di daje kon di jàng alxuraan ñu war ci tabb euh, ñett ñoo xam ne première place bi la deuxième ak kii jël troisième. Mhm. mu doon ay ndaw yoo xam ne yàgg nañ di participer kon ci euh, édition yu yu jiitu bu ren bi septième édition bi. Euh, ren nag ñu toftal ci ndem ci yàlla Serigne Pape Malick Sy doon mm, moom lañ ko tuddee mm. moom lañ ko tuddee kon doonoon xalif doonoon mm. porte-parole famille bi nga xam ne mooy famille naam Cheikh Sila Malick voilà mi ngi noonu kon euh, Pape Malick si mooy pare ren bi euh, ndaw yi comme ni ma ko waxee ci tàmbali bi. Mm-hmm. ñu ngi daje di dëggal seen waajur ak ñu sax doonul seen waajur. ci jàng mm-hmm. alxuraan mu mel ne occasion la kon pour ñu jëmmal jàngu alxuraan fii ci Sénégal. mais defe naa concours la boo xamante ne que Ablaye Dia bu comme moom moo ci def tous les moyens nécessaires wala ñoom dañuy wuti ay partenaires ci biti pour gën a mën a bégal xale yi. njiitu Sénico mm. moom moo ko organisé woon ren nag mu yaatal ko euh, mu ay ouverture am ay euh, nitu diine yu farewul sax Sénégal yu fi ñëw mm. ñu constitué benn jury bu xaw euh, bu xaw a strict quand même mm. ngir xool ci wàllu jàng alxuraan ban ndaw la ñu mën a tànn ngir muy teewal Sénégal ci yeneen concours yi nga xam ne mooy fare bitim réew mun nañ ci tudd Qatar Dubaï mun nañ ci tudd Arab Euh, defe naa xale yi bu ñu mësaan euh, bu ñu mësaan tànn lauréat bi soit am na neexal bu mu naan am ndax gis nañu xale yi souvent xale bi koy jël boo xale xale bi ko jël daaw defe naa Kaolack la dëkk bi mu ñëwee gis nañu ay bokkam waa dëkk ba mbég giñ ci bëgg mu wane ne que fooy jur yi wala nit ñi bëgg nañu xale bu jàng alxuraan wala bëgg nañu nit ku jàng alxuraan mais dañuy gis que. Euh, maanaam jàngalekatu arabe yi ci école maanaam favoriser bi ñu leen waroon favoriser comme ni ñu ko defee ci la maam ci l'école français yi ba diine am dayo bi mu war a am ci réew mi. récital <coughs> euh, a jëmmal jàng alxuraan yi nga ne moom la ñuy jagleel ki nga xam concours bi euh, du ñu yam ci ñi nga xam ne sax ñoo ko organisé. Hmm. am na ay bonne volonté yoo xam ne ñàkkul ne bés bu ñu tabee ki nga xam ne moo gagné euh, concours bi dina am ay neexal yu génn ay hmm. terrain ay hmm. kër ak ay teleeg ah, ah. ay dund ak maanaam da ngay dégg kenn ne man maa yor dundam ak dundu njabootam ah, mu mel ne euh, jàngum alxuraan bi comme ni ko tuddee am na ñu ci dox am na ñu ñuy dund di ci dox ba ba ba faatu bàyyi fi seen njaboot ñu ciy dox. Mhm. parents pauvres la dëgg la. Euh, jàngum école nasaraan lañ gën a ñoŋal jàngum alxuraan. Mhm. mais jàpp naa ne ci at yu mujj yi quand même. ñu gis évolution ñu ngi gis ay évolution. Mhm. ñu leen di gën a jox seen gëdd bi ñu yelloo ngir euh, jàngum diine au delà. alxuraan bi mu doon sax ay mm. comportement lay doon. Mm. Mm. maanaam bu bëggee yenn dérive yi ci Sénégal ñu ñu mën ko kii Oustaz Alioune Sall tudd na ko keroog ci boole jàngum alxuraan bi ak am ay comportement yu muy lu am solo imam tey lu ñu Cheikh Ahmadou Bamba Diagne indil tey muy concours Sal Coran boobu nga xamante ne Ablaye Dia bu Sénico mu ngi koy def chaque année ba am yeneen i partenaire yu bokk ci yeneen réew yu ko ci fekk mun nag affaire boo xam nag léegi nit ñi commencé nañ ko nag bàyyi xel bu baax nag. alhamdulilah loolu li ma njëkk a mooy ñaanal ko mhm. ci lu mhm. waaye bu dul njàngum alxuraan nii rek ci taxawaay yi ma gis ñu wax ne taxawu na ko ci réew mi ci diini ji ci ay jumaa ci jàkk mhm. waaye ci ay néew di doole ci jël ay suufam jox leen. boo xam ne koo xam ne yàllaam ci sa xol bi naw nga ko ci tamit da nga ko ñaanal yàlla. te wóor na ma ne ay kanam ci réew mi bari nañ. dañ dañuy avancé. li ma ciy gën a yëm nag mooy yitte ju réew jooju te bu bis tey ji am na ñu ko xàmmewul ci biir. wallaahi dëgg la loolu mooy war na jëf jooju yàlla kese moo tax. maa ngi ñaan yàlla it nag li misli haada falyamal aamiluun. noonu mu tegee tànkam foofu di liggéeyal diina ci biir am amam ci biir connaissance am ci biir xam-xamam ay moromam yàlla nañ ko roy amiin yaa amiin. concours bi ay at a ñu ngi koy topp di ko bàyyi gis nga impact bi mu am ci wàllu njàngum alxuraan ak ni ñu ko évolué yéen sax du ngeen ko xam loolu sëriñ daara yi ñoo ko xam. Mhm. daara joo dem tey boobu sax ay daara moderne yi daara ancien yi sax ñu ngi am ay ustaas yoo xam ne tey ñu ngi jàngale alxuraan ci tëj wi di defaral ndaw ñi maxaarijul xuruuf te ci lii lañ ko inspiré. Mhm. te gis nga diina boo ko seetlu li ma lay wax bu baax concours bi ñi koy def. dañ koo def pour lan yaatal alquran mm-hmm. pour lan dimbali diina ñoo nekk ci jihaad pire gis nga jihaatu jamono bii da ngay defe ne gàddu sa jaasi ji dem di terroriser nit ñi wala jël fetal bi nga ne déedéet fexeel ba alquran nit ñi bëgg ko far la force bëgg ko te ànd ceeg seen sab léegi koo xam ne sax xamee wuñ ko woon famille famille yoo xam ne xamee wuñ leen woon sax jàng alquran mbaa gëstu ko mm-hmm. da ngay gis xale bu ndaw seetaan lu mel noonu wala topp ne bàyyi ma fokk dama yóbbu ci daara ji man xam naa ci ay centaine de personnes yoo xam ne loolu moo leen jàngal alquran yàlla bi muy wax yonent bi jihaad def na ko wa jaahidhum bihi jihaadan kabira kon al jihaadu akbar fii ci jamono mooy fexe def effort ci alquran ci man ko waaye pour jegeel ko nit yi concours bi nag dañoo gis ne impact bi mu ci am kenn mënu koo natt ba jeexal macha allah damay wax ne nag li ko fi indi rek ci idée bi mooy li fi indi système bi mag ñi di defee gàmmoo yeeg genre yeeg loolu yëpp boo ci ñuy tudd bidaa bidaa la. parce que Ablaye Jabi bu fàttali doomi daara la. man dem naa gis la mu fa liggéeyal diine da nga xam ne bu defee lii ak fi mu jóge la. ñun dañuy ñaan yàlla ñun ñu tuddaaree Ablaye Dia. Serigne Mbow. ak ñi mel ñoom ci réew mi te bari fii lool. Hmm. yàlla yàlla bari seen i ñooñu bu yàlla bari lee seen képp. léegi dina am ndam. Cheikh Ahmed wax dimbali dimbali ma sama donga yee

dafa am koo xam ne mën na topp concours yu mel nii mën naa moo koy àtte wala dong moo koy jël mais boo ca paree nag boo ñëwee ci gàmmu mu a la baaxul. baaxul wallaay dëgg la wallaay dëgg la. comprendre lu baax. Mhm. <coughs> influence nit ñi ñu rawante ci mokkal alquran gën ko loolu ci saxaaba yi daan na am ci kanam yoon daan na waaye nag teg nañ prime bi nangam bi nangam bi nangam loolu biddaa waaye ndaw biddaa bu rafet ba toll ci jamono mhm. nga ne mënul a ñàkk bi nga demee ba gis xam nga ay bëgguma kii mais ay seen ay seen petit gàllé amoon na fi. amoon na fi waaw waaw jaxase carte yi de da nga de eh, eh, xool da nga naan sax eh, Oscar des vacances. Oscar oh, des vacances waaw waaw te gis nga après jeexital yi mu am sax neexul neexul kenn ci réew mi. neexul kenn ci réew mi ba ci ay Miss Sénégal gii li ci defoon ak yooyu yëpp jeexital yi mu am après mooy. polémique bu métti ci penc mi. gis nga diine nag bu la ci kenn na bàyyi defal bu fi taxaw di wax baaxul nag yow kéréel beneen bu baax boo xam ne da nga ko jegee nit ñi taxaw. jazakumullah yaa fadlatul imam gis nga Cheikh ba yow ñu di la wax jërëjëf. thème bi am na solo trop ah vraiment. mais hmm. attention bu. du hmm. concours récital rek moo fi nekk am na ñuy def concours ci mbindum alquran. Hmm. maa ngi ciy gis rek barki démb ku ñëw mu jël prime bi di jox lu baree bëri ci ay mi nga xam ne parce que alquran nit du jàng mi kese mais mbind mi. mbind mi ko fi bàyyee ba tey ñu mën cee la cest à koo xam ne yaa ngi yëngatu ci ca mbind ma la ca njàng mu rafet ma la ca firi ma la ci jëmmi mokkal ba yooyu yëpp maa ngi ci gis ay concours te mu ngi bare mais loolu neex neexoon na lool lool lool état du Sénégal doon ci dugal loo xam ne dëgg dëgg yàlla. Bamba. buur mi noonu kon euh, ponk bi ñuy euh, conclure oustaz cox euh, na ko xam ne concours récital bi am na ko ci ndaw ñi am na ko ci société bi mu mel ne lu ñu. mën a firndee la ndax jubluwaayu euh, concours bi du lenn lu dul def promotion jàng alxuraan. Mm. fii ci Sénégal def promotion jàngum diine. kon fii ci Sénégal mu mel ne ñi ngi koy commencé réussir ndax boo duggee ci internet bi vidéo yi nga xam ne moo jugee ci euh, concours récital coran boobu ñu ngi koy suivre bu baax ay millions de vues kon lay am euh, ma bëggoon comme ni ma ko tàmm di defee bàyyi fi benn laaj oustaz ñu ñi nga xam ne ñooy waajur yi am ay doom ndaw nan lañ mën a def ba suñu doom jàng euh, alxuraan waaye tamit jàng li nga xam ne mooy école tubaab bi jërëjëf. oustaz kon laaj baa ngi noonu Bamba ñu di la jërëjëfal xabaar ne baa bi si daf mel ni seet naa ko fi léegi moom tamit mën na si le temps imam euh, tontu laaj bi nga xam ne moom mooy laaju Cheikh Bamba jërëjëf Cheikh Bamba kon ñu ngi lay xaar aaju ba biir ñëw. <laughs> ci lu yomb la. Mhm. jàng alxuraan baasu diina ku ci bëgg sa njaboot am ñaar fexeel ba mu xam ne xam dara rek yóbbu ko ci daara mhm. dëgg mhm. mu jàng alxuraan ba mokkal ko wala ba miin ko miin boo xam ne dootu ci amati problème mhm. soo koy dugal école nga dugal ko école mu continuer di jàng xam-xamu diina ci temps yi muy am c'est facile am nañu ko réussir boole ñaar mais li mënul nekk pendant muy jàng alxuraan nga dugal ci leneen boo ko defee li mu bëgg ci alxuraan doo ko am alxuraan dafa fiir te xale yi ma gis expérience bi leen yàlla jox ak xel yu neex yi à l'âge de cinq ans dañuy yeew dañuy yeew boo ko yóbboo ci daara bi baax fas yéene di ci sonn te di muñ mu jaral la lam lay jaral ci école yu cher yi yàlla xam na ne bu yàlla dimbalee balaa quatre ans cinq ans mu wattu alxuraan te la ci yéeme retard du am gis nga bu demee école ay classes yi classes lay mën a tëb dëgg la parce que ñor ak yeewu ak mën a mokkal boobu nga xam ne moom la alxuraan def ci moom morom la dul am ci classe moo tax c'est facile mais li ñu bëri fi ñuy échecgee da ngay départ benn waaye nax la na la waaw sama dana jàng alxuraan dana jàng dana jàng dana jàng nang nga ne waaw da ngay mujj na nga ko bëggee woon yow mm-hmm. Mm-hmm. c'est-à-dire nga def benn sacrifice nitu diina alxuraan muy dugg ci moom bu alxuraan jiitoo ci moom ba mokkal na ko wala yëpp na ko yëpp boo xam ne dootul ko pertete yow yi nag mu des sa xeexu bopp yow fooy jaar ak moom ci stratégie di naxanteeg moom ba nga xam ne du bàyyi alxuraan da koy jàng waaye tamit di ko jàngaloo xam-xamu diina mu boole koo jàng école loolu c'est facile. macha xam ci islam yëpp ko jàng. te wallaahi te du yàq dara du yàq dara. ay yoo xam ne ci yoon boobu lañ leen man de xam naa ci ñu bari sax waaw doon ay intellectuel yu mag yu mag. ay intellectuel yu mag te benn masalaam ah, Mbàkke mi nga xam ne démb moom moo moom moo ootu sëñ Moussa Absa di xalif sëñ Mouraw Balla pourtant gan la mal Mahmoud docteur la. mais fii te doomi daara la. walaay. fort bi mooy jiite la. walaay xoolal sëñ Abib si docteur. ah ah. Eh, xam nga sëñ bi Bali. ñu ñëpp di ay doomi daara tey bokk ci exception xanaa euh, baat bi namoon naa la ah. ah, ñaari tey moom ñaari siise siise ma siise ma ah. seq tey <laughs> euh, macha allah. ni mm. euh, yàgg na te li fiy jóge ci xam-xam. am na njëriñ mm, mm, tey Badou tey lu ñu indil tey. waaw tey nag euh, dañuy ñëw xëy na ci fait de société. Mm-hmm. li nga xam ni moom moo xew ci jamono ñëpp di ci wax. Mm-hmm. Euh, te ñàkkul imaam xëy na ñun na ko te muy mbirum ndaw soosu nga xam ni dafa gaañu fële ci Louga te waroon accoucher. muy affaire wu astu soxna. soxna. Mhm. waaw astu soxna buur nekk euh, jigéen joo xam ne duñ ko duñ waroon rawalee la. Mhm. yàlla def euh, mu ñàkk bakkan ci hôpital bu ñox Amadou Sakhir Mbaye bu Louga. Mhm. semaine yi ñu génn. loolu nag moo nekk coow fi nekk nii. coow lu bari sax coow lu bari sax. coow lu bari. ndax li li li ci ne mooy daf dañ ko négliger. loolu wax ba euh, yàlla jël bakkanam ci structure de santé boobu. Euh, depuis boobu nag ciow bari na parce que jëkkër gi bopam mu mu mu dafa porter plainte mhm. amee parce que dafa japp ni euh, jabaram bi mi woote walu euh, personnel de santé bi fa nekkoon nekkoon de garde ñu li ñu wara def mhm. ndax té il paraît dañ ndaw ci da doon ñaxtu da doon wax ñew leen dimbali ma mais ñi ñi nga xam ñoo ko waroon a wallu li ñu ko doon wax mooy kenn programmé wu la tey. Hmm. docteur bi suba la la programme ak lu ngeen di mënti wax leen ñun duñ leen duñ leen toppatoo parce que kenn programmé pour nga am doom tey. Ah, léegi loolu nag yàlla def ndaw si ñàkk bakkanam jëkkër ji moom euh, jàpp ni dañ ko négligé négligence daf ci am. ak li ñuy wax. non assistance à hmm. personne en danger. d'ailleurs sax ci motif yooyu si la porte plainte ba parquet bu Louga fi mu nekk nii ubbi na enquête. pour xool responsabilité yi si xibaar yi ñu mujj jot sax. Hmm. te ñu war ko vérifier mooy am na ñu ñu tey gis nañ sax ki nga xam ne moo jiite sage-femme yi Sénégal def na benn post ci Facebook di ko di ko xaw a ñaawlu naa dafa mel ni sage-femme yi la ñu sacrifié. mais nag sage-femme dañu jar a waxal aussi. waaw buur loolu xam dañu jar a waxal ah, gis nga parce que xamul la ah, euh, dëgg la ay jàmbaar lañu sax dañ leen ni ndax ki mën a réew nit ba doom judd ca kooku yàlla rek moo am fayam. mais tamit euh, laxisme bi bari na ci gis nga Sénégal bu ci nekk ci ñun mës nga subir seen laxisme boobu bu dee yàlla rek moo tax di wax man sama soxna di maggi Ousmane mi doomam ju mujj barke alquranul karim ndaw si am na ko ci guddi gii ci guddi gi ba ñu récupéré xale bi ba raxasal ko ko jox ko ndaw si di sañee guddi guddi laa wax ba 9 heures ci suba man ba ni may ñëwee man ca bërëbu lopitaal man bi ma ñëwee man mi jëkkëram maa ngi gis deret jaa ngi wala ngaan ba ci bunt bi. boobu ana ñu ko war pare nañ ci depuis beeg. léegi ba amoon hémorragie nag de donc ci côté yooyu la ñuy waxee il faut que ñoom ñu jiite kuréel yooyu xam ni du dañuy indexer les sages-femmes ci seen i jëmm mais seen doxalin mooy ñàkk nañu kersa ñenn ci ñoom xamadi nañu lool ba yegg ca. ñenn ñi il elle ne savent pas parler gis nga Badou kii indi malaatam ci yow moo la gën a jaaxle yow moom fay fekk laaj na nga tane ko ci mentalité pour mën ko dalal defal ko eh yow jubul kii fi yow yow eh kii na jàll fii waaye yow eh wàññi si maanaam dañuy def façon boo xam ne donc à qui la faute. buur lu am solo xam naa imaam xam naa moom dina am lu mu ci wax euh, waaye li nga wax loolu du du neex a du neex a weddi kenn mun ko ku ci nekk man personnellement dama koy wax souvent man sama yaay infirmière la. Mhm. suñu taaw infirmière la. mais man buur man ragal naa hôpital ragal hôpital boo xam ni parfois yi koy waral rek mooy yii nii. non yii nii. te mm. tamit euh, li koy indi souvent aussi. mooy aussi dañu toll ci jamono boo xam ni li ñuy wax humanisme dafa nekkatul ci nit ñi. Mhm. li sëriñ Cheikh naan nite nekk nit yomb na waaye nite moo jafe daf nit ñi dañoo niteetul. Mhm. c'est-à-dire euh, structure de santé yi léegi lan la dafa mel ni. ay ay ay bërëbu bu ñuy ah, waaw waaw waaw yow sa bàyyee fi nekkoon retraité la ñu ne nañ jël doomam sa yaay nekkoon ci hôpital bi retraité la ñu ne ñu ne nañ jël doomam léegi man li ma mënul comprendre mooy li ma wax dem Baye Abdou mooy ñoom ñii di paj paj mu bon mi ci hôpital public yi ñoom ñoo nekk dans le privé. waaw foofu boo fa ñëwee dañ la gàttandu teg la ci fauteuil roulant. jox la ndox mu sedd nga naan tëral la ci lal bu saal bu ñu climatisé parce que foofu da ngay fay. mooy région li ma la wax. waaw donc léegi effort bi ñuy def fële quel est le problème man dama jàpp ni c'est le système. non xam nga li ma la wax léegi mooy saa à dire dañu dañu la chose mooy dañu jiital xaalis parce que xam nga ki ngay fekk ci public mu mu soofantal la parfois sax mun la est doo ñëw sama privé sama. waaw waaw mooy gën de waa am na lu mu jiital. Mhm. jàppul jiit parce que public bi ñu ngi koy fay li ñu koy war a fay wala fayuñ ko li ñu koy war a fay loolu beneen débat la parce que am na ñu nga xam ne ñu ngi investir ci seen liggéey investissement boo xam ni kenn fayu leen lu toll noonu. Mm. mais ñu ngi xool seen diggante ak yàlla. Mm. mais aujourd'hui te lool xam naa imaam dina si ñëw imaam te est-ce que nit ñi. Mm. ci liggéey muy man ak keneen ak. est-ce que tey nit ñi bàyyi nañ xel seen diggante ak seen borom ba li ñu war a def ñu def ko avant ñu jiital intérêt personnel ñu bàyyi ni lii suba dinañ leen ci laaj. Mhm. alhamdulilah dégg naa li ngeen wax yëpp ak ña leen jiitu li ñu wax ci. Mhm, mhm. dama faral di wax bu ne Sénégal mën nañoo dénoncer mën nañoo wax ci problème mais pour solution moo leen. li deux mois trois mois yoo top dégg lu ko mel. Mhm. mais après balaa balaa coow ku ne génn man def nañ ko ni def nañ ko sama soxna après mu jeex. Mhm. beneen heure bi déggaat ko kañ solution bi am. Mhm. Euh, damay wax ne métier yep métier yu bax lañ métier yu rëy yoon lañ bu fekke ka ca nekk mu ngi koy jaamu yàlla waaye benn melu ci li ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne ñaari xam-xam du gënoon a fonk al fiqh wa tibb dafa gëm ne sax ab jullit waru cee ñàkk xam aslëf fépp mooy li ngay pratiquer sa diina waaye ab tëbb mooy li ngay pratiquer ci wàllu médecine médecine boobu lu tax mu foor yàlla mu ngi wax ci alxuraan ne benn bakkan ku def effort ba sowee ko waaye ñi yor boo xam ne buñ ko traité wul mën na ko yóbbu ba sax nga góorgóorlu ci ba faj ko wér mm. soxna si toll tamit du am doom bakkanam mën na cee sa nga góorgóorlu sowee ko ba yàlla nee na dafa mel ni nas yi woon lëm nga sowee ci suratul maida wa man ahyaaha fa ka annama ahya naasa jamia boobu tiyaa ba ban moo toll mais boo négliger ben bakkan xam nga kenn man taray bakkan ko dul yàlla kenn man ko ku dul yàlla. mais boo négliger ben bakkan bam fa yàlla ne man qatala nafsan bi ghayri haqqin aw fasadin fil ardi man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an naasa jamia dafa melni nation bi lemb lemb nga rayandoo seetal c'est-à-dire comme. ak rëy tiyaaba ak rëy njëriñ waaye boo ci négligé koo war te négligé ak bàkkaar ba moo rëy ak daan ba moo rëy imaam sax maam Alaaji Maalik bi ko ne ma juumul daf ne médecin médecin parce que loolu ci yonent bi la ko jëlee sallallahu alayhi wa sallam woon nekk buy dimbali ñu seen diine rek merci loolu attention sax ñoom ñëpp ay médecin lañ waaw bind nañ ay téere ci wàllu fën boobu man gis naa ci ñu ci bind lu yaatoo yaatu yaatu ci wàllu médecine mais lan mooy problème bi ñu am ay hôpital am ay médecins yu ñuy fay ay millions ñu ñu leen di fay ay junni yu dul jeex di leen defal li leen defal yëpp tey bu nit amoon benn jàngoro bu ko dal sëriñ bi lay gën a wóoloo dem seeti wala médecine traditionnelle bi ka hôpital. Mhm, mhm. muy ñu góor ñi muy ñu jigéen ñu mag ñi muy ñu ndaw ñi. la ma ngi ciy wax sànq def na ci liggéey bu am solo Abdou Karim. Karim wax la nag problème bi man du nangu ñu jël lépp rek xëpp ko médecins yi ak sage-femme bi. dëgg la mhm. am na ci ñu yaradiku ba fa yaradiku yëpp li lay xamal ne yaradiku mooy fi nga daanelee point bu am solo la. yenn yenn yenn yenn sages-femmes yi ñu mel ni ñooñu ni ñuy traité yenn maladies yi ci euh, hôpital public yi par rapport ak. privé yi boo demee ci privé yi muy clinique du demee noonu léegi lan moo waral loolu kon loolu tayef la. Mhm. man d'accord naa ko maladie wër pression bi noonu. Mhm. loolu rek feebar la ci moom. Mhm, nga am melo formé woon nañ ko am na fu ñu ko jaarale woon pour mu mën a dékku loolu. damay wax ne li tax policier bi damay foog ne lépp ci formation bi mooy des policier bi li tax bala ñu koo teg ci tali bi jox ko fetal ñu jaarale ko bango militaire bi noonu gendarme bi noonu.

waxuma ña fa dëkk di yor nationalité réew mais immigré ya fa nekk rek seen i soxna duñ accusé dem ci hôpital public yi ñu leen di traité ko ku ci def dootoo ko nettali ku ci négligé benn malade rek ba mu waxuma la ba mu faatu de mais ba mu am benn gaañu gaañu bu jéggi dayoo yow sa sa sa sa métier ful la jot ñu am te gëmuñ yonent bi gëmuñ dara mais fonk àqi doomu aadama tax na ñu taxawee noonu est ce que taxawaay boobu bu ko état bi moom it taxaw woon problème yi dana am beneen bi ci toppaat lan moo waral privé bi ñu gën a fonk ko public bi est-ce que kon état bi tamit li mu war a. Mm, war fële mu ngi koy def. parce mm. que tamit nit ki da ngay bàyyi xel su fekkee médecin de charge femme nga yaa ngi fay yaa ngi am ay retard ay quelques mois mais dépasse sa kër mu ngi càng sa loyaas ñu ngi lay taxawu fii bor yi nga amee nii. Mm. pression boobu jàpp nañu. par exemple femme tey loolu la ñuy jooy mooy payoor gi dafa néew. trente cinq mille fukki junni trente cinq mille yóbbu la ci àll bi ñoom it jooytu nañu loolu. léegi loolu lu mot a bàyyi xel la duñ la fay lu mat benn li ci gën a bëri ci ñoom ba lañ ko jot danañ sonn léegi bàyyi xel nag péréction boobu bu la jàppee yow it boo ñëwee da nga koy suppi maladie xool ko ci kenn ku ne ñoom nag boo xëyee dem marché neexul boo ñëwee sa waa kër da koy suppi mm. Mm, mm. la kon leen bu jël toor bi yëpp xëpp leen ko xam naa ne ñu xamane ñu ngi ci seen biir loolu malformation moo am ci man li ma gis ñenn ñi ci des nag xamadi goo xam ne naturel la ci ñoom ñooñu dañ leen war a seppi ci métier mi métier moom àndut ak xamadi métier moom yërmande lay ànd ak xakim euh, bu mag bi nga xam ne mu gën a siiw ci wàllu médecine ci borom xam-xam yi muy Ibnu Xaldun nga xam ne médecin yi dañu xam ci lu bëri ci moom lañ ko sàccee. Mm. wax ne malade bi amee benn maladie nga war ko faj genn wàllu ordonnance bi ñu koy traité pour fa saafara jàngoro mooy dalal mm. fexe ba xelam dal ci yow mu ñeme la c'est-à-dire na feebar ñëw ci yow. danaa koy wax gars yi ci jamono Covid bi boo gisee mu xawoon ñëw gën a sonal ñu bëri dana leen daal mais ñeme dem puisque la leen cay fekk. cest à fexe ba nit ki bu amee lu mu yëg ci yaramam lu jaaduwul xelam man a dal ci mu dem ci médecin bi wala ci sage-femme bi muy que ne su ma demee du ma wax waxu xamadi euh, bi muy suivre affaire yi fan yi benn soxna mu ngi wax benn wax da ko wax fi mu koy waxee ci télé bi ay jigéen ñoo nekk fi nga xam ne man maa ngi fa di seetaanandoor mais ñi ñëpp yooxoondoor ne dëgg la ne gaa yi da ngay toll foofu ñu ne kii naan la ay ba muy ba muy neex nangam nangam waaw waaw waaw waaw waaw ba muy neex yow la woon kenn fekkewul gëm ne ci malformation bi. ay gis nga médecine <coughs> ñëpp bànqaas bu mu aju métier noble la. métier ku yaru la war a doon métier ku sedd la war a doon métier ku mën a muñ la war a doon métier ku am yërmande te am sutura la war a yii ma lay wax nii ku mën a sax. yii ma mm-hmm. lay yii ma lay nii bu manqué ci médecine rek kooku nekkatul kuy faj mais association la koy def. léegi nag loolu bu ñu ko buggee saafara bu ñu topp cool yi nii rek di dem mais nañ nañ xool base bi fan la ñu réglé ko mais ñu utal ko ay solution te loolu bu la ci kenn na bu ci état bi taxawoon tey rek. lam mu warloo ñoom mu di ko matal boobaa ku ci wacc yoon bu mën a fugg sa mais bu fekkee sa dépasse matul bu sa ci xamee timit nak da ngay téye sa ji. mu ngi non non ma sha allah ma sha allah. c'est limu mom moom il a posé le vrai débat. Mm-hmm. xam nga limu wax ni ni Sénégal euh, li bu ñëwé fi mu ne nii ak ñetti fan. ñu faté ko leneen ñëw. Mm-hmm. na nga ne na nga daaw amono hôpital c'était hôpital général bu grave mm-hmm. na nga ni daaw na nga ni daaw. Amadou euh, parquet bu Louga bii nga xam ni fa la ñu yóbbu dossier wu astu soxna bi mu ngi suivre dossier boo xam ni yàggul vingt deux mille vingt et un muy ñeenti xale yi nga xam ne ñu ngi gaañowoon ci wala ca hôpital ba lakkoon ca crèche ba loo bu bu bu Linguère ñu jàppoon ci ay nit euh, médecins yi daal di seen syndicat bi def euh, grève ne bu ñu leen tëjee ñoom dañuy dañuy dañuy paralyser le système. Hmm. finalement dañu mettre ñëpp sous sous sous sous. contrôle judiciaire. nga xam ne du tëj kenn duñu duñu du nekkuñu fi ñun pour incriminer. mais du ma si fenn les responsables ni ko Imam waxee les responsabilités sont partagées parce que aussi affaire bi li beneen problème bi muy posé aussi mooy problème spécialisation. Hmm. xam nga aussi sage-femme bi mën nga leen waxal lu ne mais dans le cas de de l'affaire de Astou Sokhna. sage femme bi li nga ko mën a li nga ko mën a toppee. mooy ñàkk assistance bi. Mhm. parce que du sage femme moom mooy war a parce que mhm. association bi ñu rappelé ni césarienne la waroon def. Mhm. mooy warul joom bi warul woon jàpp. dañu waroon a xotti biir bi dañu waroon xotti biir bi te loolu du liggéeyu sage loolu liggéeyu gynécologue bi la. mooy spécialiste bi nekk foofu spécialiste est-ce que mu ngi fa woon fan la nekkoon. est-ce que am nañ spécialiste yu doy pour mm-hmm. structure sanitaire yi wala district sanitaire yu Sénégal yëpp loolu si problème yi la bokk parce que spécialiste yi pare du ñu fanaan si hôpitaux yi mm-hmm. donc boo soxlaa yow boo demee da nga ci gis koo xamante ne que

maanaam tey boo demee ci région yu bëri amatuñu sax gynécologue. non non mais dafa dafa mais léegi man dëkk bi moo feebar wala ñun suñu état yi. wala. man je ne comprends pas région boo xam ne wala ville boo xam ne amul gynécologue. nga am femme boo xam ni dafa war a accoucher warul def accouchement normal su ko amul si dëkk bi lan la ñuy def dañuy obligé transporter ko di daw ak moom jëm foo xam ni foofu am na ko diggante boobu lu ne. xaj waaw léegi man xam nga bàyyi du man sama problème mooy tous ces milliards ñuy <laughs> wax nikk ñu ngi koy dugal ci système santé coow loolu maanaam fan la fan la ñu toll. et plus man problème boobu laa laa am ko parce que on ne joue pas avec la santé quoi man sama xalaat. comme toujours quoi comme toujours. mais euh, après li wax moy li ak lu mënti amit ñun def nañ fi dara. def nañ fi dara lu mënti amit euh, li ñun am nañu ay jéego yu ñu tek ci c'est-à-dire am situation bu ñu. et se justifie quoi politiquement quoi. Mm, mm, politiquement quoi. moy comme li sage-femme di def tey jii euh, gis nga man suñu suñu suñu incriminer woon la presse ci benn affaire. du ma fi nekk di défendre. naan wooy ñu ah, journaliste ñoo fi nekk. de kii damay xool ci li li am. ba pare mm, mm. defuñu ko mais man nag damaa mos a gis man ci benn réew daal nga jële du ñu saafara waaw xam nga imam li ma jaaxal. ku nekk génn rek problème mooy département bi. problème bi problème am na lu mm. loo fi def nit ñi gis. xam nga loolu tamit loolu waxi tappale dëgg la. gis nga lii am na ci réew ñu doonoon waaw yow ñaata ministre ngay dégg yoo xam ne dañuy démissionné sax ndax ndax ndax ndax scandale yu mel noonu peut être ñun réewu man daal li ma bañ ñu topp débat bi di di ko coow bëccëg ba ba noppi ci balaa ñaari weer ñetti weer noonu noonu lay demee de mm. man man na maam xam lu ma mënul comprendre la topp mooy ñuy jiite priorité ñun priorité lañ xamul lañu xamul de ñàkkuñu de dañ naan ci pays yi gën a ndóol la bokk mais bi ku ko fi tane néewul fii tout le dama koy wax ñàkkuñ xam-xam as koppali ñàkkuñ ci dara démb maa koy wax ak benn waaye ma ne ko settantaleen bi ñun suñuy kilifa buñ feebaree dañuy jël vol du moins dem Maroc faju ci hmm. Marocains yi dañuy ñëw université Cheikh Anta Diop di fi jàngee xam-xam léegi lan mooy problème jërëjëf ah, imam euh, euh, euh, benn benn aussi ci ci jàngoro yi na mooy suñu kilifa yooyu nga wax noonu nga xam ni tey ku ci am góom bu ndaw sax jël vol ah ñoom bu ñu fexee ba ñoom ñuy fajoo ci suñu réew yi xaw ma kan moo ko waxati mm. bu ñu fexee ba ñoom lu leen dal ñu dugg ci hôpitaux yi faju fa mm. ah xëy na su boobaa euh, dinañ xam ne ñun ak ñoom ñoo ci wàllum sol xëy na dinañ. suñu plateau médical dinañ ko mën a relever tuuti. dañoo amul confiance ci ñuy faj fii. dañ leen respecté wul. <laughs> man pour man dañoo respecté wu. xam nga man man imam man imam sama wax du neex département bu toll ni santé nga mën fi jëlee ku mel ne docteur Awa Marie Coll Seck ak limu am ci ay diplôme fi mu tollu ci walu science ak médecine jëlé ko fi dem jëlé fi ko xamné science xaw ma naa leen xam nga des fois waaw des fois du neex du neex koo xam docteur la bo xamante ne elle est reconnue dans le monde entier de par xam-xam bi ko yàlla may ci limuy def nga mën ko dénk département pour des clivages politiques ak pour une base politique tax nga jëlé ko fi indi fi keneen xoolal ngor sama xol gi bëgg tànn ngóor lay ngi lay jël ngi lay jërëjëf Euh, toujours ci solo si mu am euh, imaam yow tamit vraiment tontu bi am na solo xanaa rek li ñuy def euh, kan moo war a ñëw samsi bu ko defee ñu waxtaane Karim daanaka dinañu fekk sax moom ci sujet bi ñu doon waxtaane mooy imaam sànq fi nga tëjee mooy nee nga Sénégal bi bu dem na sax ba bu wéradee médecine traditionnelle bi lay gën a wóolu ko li nga xam ne moom mooy médecine moderne bi tey Karim la ñu indiloon tey. Mm-hmm. lu si mm-hmm. tey ñu ngi am ñu ngi romb suñu dixième jour. si mm-hmm. weeru koor gi di ñaan yàlla nangu ñu suñu koor. amiin amiin tey dama leen indiloon benn élément bu jëm si wàllum euh, euh, faj. ndax faj bi dafa am ñaari ponk. fajum tubaab ak. Euh, fajum wolof faju wolof. faju wolof bi yàgg na lool si suñu ñun. te mënuñu ko dindeeti si suñu société. Ah, élément bi pour bàyyi leen rek ngeen. ñu seetaan ko moom doon nañ ci def ñaan waaye hôpital bi daal la ëppoon lu ñuy dem moom. dañoo foogoon ne tànkal dal na kii dal kii ay rab laa feebaru wolof yooyu daal ay rab daal lañ ko tegoon moo taxoon sax ma bàyyi affaire hôpital. biñ demee mu am ku ñu wax nañu lii de ay rab la kooku aussi def nañ ci presque cent cent trente mille yi tegaloon na kooku tamit def def def def gisuñu ci dara ba léegi ay garabam a ngi fi presque daal loola mag juróom benn sëriñ. wala lu ko ëpp dem nañ ci. sama yaay mi yóbbu na ko lu mat ñetti at ci Serigne Gora Seye bi nekk fii euh, Grand Mbao lu mat ñetti at tegale na ko di ko yóbbu Serigne Gora Seye kii nii moom dama koo jëlale ndax moom la njëkk daal pour ñun feebar la nii rek kii nii amul fu ñu ko yóbbu ci àddina reefat damay dem reefat ba mënatumaa dem ma arrêté. la croyance mystique yi moom dafa yàgg ci nit ku ñuul. parce que coup crise coup paralysé té dara jotul woon dañuy japp ni mbirum jinne la lool motax nak ci fofu lañu ñëk njëkk sukkandiku loolu mom croyance Afrique la non lañ mel mais souvent échec biñuy am fofu moy waral ñu tourner vers la médecine moderne pour mëna prendre parce que dépenser nañu sen xaliss gisunu amélioration muj bi dañuy tourner parce que affaire bi deux volets la wala ma dem ci médecine traditionnelle ma am ci sama résultat ma top ko

parents mm-hmm. euh, parents yu nekk dañoo am doom te mm-hmm. seeni doom dañoo am feebar feebar bi nu mu ñëwee si ñoom c'est dafay dafay dafa méngoo ak euh, mbirum jinne mm-hmm. parce que day seen doom yi danañ dañ daan dox jékki saay lafañ doxatuñu ñii di ñii di dox jékki saay rek piqué ay crise ñoom automatiquement seen xel day dem ci wàllum rab léegi de ce dañuy dañuy bàyyi carrément euh, médecine moderne bi moderne bi dem ci faju olof bi loolu nag après ay gàllankoor la ñuy am parce que dañu dajeeg ay nit yoo xamante ni mën nañu wax. Hmm. seen capacité eggul foofu. dinañu lekk seen xaalis ba noppi malaat bi du wér la major partie. dinañ ci ay millions. Hmm. dépensé ko lu bëri. Hmm. ba pare euh, ñi rëcc ko duñ ci am lu ñu bëgg. mu nekk loo xamante ni nii dañ koy faral di gis ci suñu société. mais médecins modernes yi ñoom bi ñu waxee ñoom nee nañ carrément euh, loolu yàgg nañ ko yàgg nañ ko ñëw parce que dinañ ñëw gis. nit koo xam ne dina dem ci médecin traditionnel. mu jox ko yoo xamante ni nii da koy gën bu ko gën a feebarloo yokk jàngoroom. léegi bu benn nekkoon ci moom ñett day nekk ci ñoom. Mm-hmm. loolu mu nekk mbir moo xamante ni nii euh, am na am na ampleur lool ci suñu société. Mm-hmm. te ñu war ko xool parce que mm-hmm. monde léegi bi day dox. ñun tamit dañoo war a dox ànd ak moom. waaw. muy lu ama am solo way way li mu wax euh, euh, maanaam imaam lu am solo la mooy da ngay am malaat des fois ñu waroon ko jiitu ci kër docteur yi xam sababi jàngoroom. mais bu dee yenn feebar yi la nit ñi dañuy dem ba duñu ko jàppee da nga gis ñu indil la benn malade ñu ne ah lii de du faju docteur wala soit que sax léeg sax euh, kër docteur rek ñoo leen ci poussé ndax da nga dégg ñu ne def na rajo bu ne def na analise bu ne yàlla def na gisuñu dara baatu gisuñu dara boobu moo koy yóbbuwaat ci maaman bi te boo demee tey kër fajkatu wala fi tey day fees jàll ci wàllu jinni ci wàllu rab boo ñëwee ñële ngay yuuxu ñële ngay crise ñële ñu ngi sut ay soow léegi day dem ba mujj gi ca hôpital ba ñu ko jëlee woon ca mujjanteelam fa lañ koy dalawaat mais buñ koy dalawaat dafay fekk mu xam nga faj gis nga xam-xamu dañ ko jàng nii sax. Mhm. waaye am ci résultat yoo sa xam. Mhm. waaw wala fajum jaago fajum joolaa. fajum cosaan boo dee dégg fajum cosaan. mooy médecin bi nga xam ne mooy médecine bi nga xam ne mooy ancien bi. c'est-à-dire dañ naan yonent yi daan nañ jàng leen. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajale nañ ay xadis yu bëree bëri ci ay waxam ak i waxi saxaaba yoo xam ne ci wàllu médecine la jëm. di faj di faj yi mag ñi taarif nañ ci ay téere am nañ ci ay résultats yu kawe léegi cosaan boobu mooy comme cas bi ñu am sànq rek soxna si am doom problème yi ci am mais. maire yi daan nekk te jànguñ boobu xam-xam lu dul dañ daan ànd ku koy def. mu jox mm. leen secret ñu gis ko. waaw ba tey ñu ngi koy am sax ñu ngi mm. mais léegi amatoo sañ-sañ boobu ci yenn gox yi. Mm. soxna si ko fi daan def parcel benn cas ko ci dal xale bu jigéen bu mujj dee ci ay loxoom. ba finalement dañ ko mujj tere. lan ñu bàyyi boole boole ñaar yàlla moo doon may kenn lenn. Mhm. ñii da leen di jox lii ñii mu jox leen bu ñu fexe woon ba maire yu mel noonu am formation yu ci ancien ya mhm. ak ñan ca tàggam ñu dugal leen ci hôpital yi minimum moderniser leen tuuti ci ay formation wet googu ñu di ci dimbale sage-femme yi wala sax ñoom ci seen jëm jëmmi bopp ñu di ko taxawoo problème yu bëri mën nañ bañ mais bu ñu leen écarté effacé leen sañatu leen ko te ñoom xam-xam bi ñu ci am ci wàllu aada xamoo ko te sa aada day joué ci yow. Hmm. kii euh, sa femme dafa jàng ci tubaab yi nangam mais des na yow sa culture. Hmm. est-ce sa bosam bu tubaab bi ni muy demee noonu la bokk c'est-à-dire ñoom bu ñu leen ci dugaloon rek yëf yi yomb xàkkasaar noonu lay demee ci hôpitaux yi. ñun hmm. dañuy jaxasoo ñu ne. sama maam Cheikh Mouna Alaaji Abdou Salaam yàlla na ko yàlla fay dafa daan seetlu boo ko indilaan malade li mu kenn dara laalee ñu njëkk a wax mooy yóbbu leen ko ba xam ne nangam la boo ñëwee ci moom sax ñaan ko dalay wax ne bàyyi xel kat ne su fekkee feebar bi lu médecin war a faj la ñu dem ñu ne ñu gisuñu dara nangam nangam nga daje ko mën a ñaan mu ñaanal la ñaan gi man na weer jàngoro si dañ ko faj wala mu dajalee la. ma li ma jaaxal imam mooy ci mbiri jinne crise léegi la gën a bare. crise jinne daanu luy tee hôpital bu nekk wala clinique bu nekk am ku ñu mënoon na liggéeyee ci wàllu cosaan ci côté boobu. mu nekk ba comme médecin momi it. hôpital fan wala hôpital bu tiaré amoon nañ ko ay tan xaw ma nag mu toll. mu am comme diplôme par exemple bu ñu gisee ka bu mel noonu boo xam ne xol xool nañ ba soxla seen xam-xam ajuwul ci mais ñu ñu ñu booyal ko mu def lim xam seen résultat ñu boole seen ñaari xam-xam résultat yi di continuer. dañ na bu ñaari xam-xam yooyu wu li indi mooy lii kenn ci ñoom matul. médecins yi dañ naan la seet nañ ko sonn gisul wala nga dem gars yi naan ah lii du fajum docteur parce que bi mu dalee di ñàkk na ay millions ci hôpital bi amul njëriñ kaay ma dem ci Serigne Sangam kaay ma dem ci Maman Sangam mën naa mën mën naa tëli. non pertement ñaari yoon lay doon. Euh, hmm. parce que am na ñoo xam ne bëgg nañu mais gisuñu ko xamante ni xam-xam màcc na ci loolu. Hmm. ndaxte ñu si ëpp ay euh, ñu ndaw lañ. dañuy ñëw hmm, ay dóorkat quoi waaw mën nañu ay dóorkat rek. lekk sa mm, mm, mm. baax ak ku bon ko jàpp jinnee ko sadd jinnee ko mooy mooy li mooy li imaam doon développé léegi rek projet lay dogal gis nga xam-xam yooyu xam dafa am ñu koy dabu jàng ay faux policier yaa ngi ay faux médecin ay faux marabu gis ay faux marabu jël média bi médiatiser karab karab mais yëf yi nekkul foofu gis nga daal loolu bu la arrivé am na barab yoo xam ne nit ñi xam nañ leen ci yooyu mm-hmm. buy rab laag buy jinne laag buy nangam ak nangam ma ne la médecin yi ci seen jëm bopp bu leen loolu arrivé wala kilifa diine yu mag yi bu leen loolu arrivé mbaa mu arrivé seen njaboot am na fu ñuy jubali direct te bu ñu demee ci kàttanu yàlla ñu am ay résultat mais bi nag mooy nit ñi ñu bëri gëstu tamit. Mm-hmm. par exemple ni nga mënee gëstu hôpital ban ay ci domaine sàngam ñu wax la ni par boo ci tradition tradition moom da ngay xool mm-hmm. mm-hmm. boo doon dellu ca cosaan ya ca dëkku cosaan da ngay wax fajum cosaan moom dëkku cosaan la. <laughs> mu ngi noonu Karim lay tàggoo muy la am am solo vraiment di dossier bu très très très très important boo xam ne liñ ci mën a euh, jukkee ci ay mbiram dana mën a jariñ bari na. Mm-hmm. parce que gis naa ni faj dafa nekk lu am solo. su mm-hmm. nekk di nga jóg pour wët euh, saafara sa wér mm-hmm. ah, euh, na solo lool nit ñi xam fu ñu jëm. ak euh, fan kañ la ñu war a jëm ban moment la ñu war parce que moment sëriñ dafa am. ak moment docteur bi dafa am. te yaakaar naa lu njëkk mooy. ñu sukkandiku ci fajum tubaab bi nag ñoom boo demee. dinañ la jox kayit loo xamante ni. da ngay fajum diine. fajum diine. fajum diine bu la jàngoro dalee nga listixaar d'abord listixaar waxuma ay listixaar maamoon yi de julli ñaari rakka ñaan yàlla mu utal la solution ci mbir mi hmm. nga gëm ne kuñ la mën a boolee buy médecin bi la buy sëriñ ba la dafa def effort waaye fajul la moom dama faj waaye du la wéral ki la wéral yàlla jiitu boo jugee nag lala dal nga dem ca domaine boobu ña ko muy ngoo bu dee médecin yi la ñu def seen consultation xool aca nga dem waaye nag su fekkee def nga loolu ba sonn amoo résultat wala sa nit def nga loolu ba sonn amul résultat bu ko leneen dalee day demaat wala day dem feneen. Hmm. bu ko defee loolu moo tax ma lay wax ne la malade dañ koy faj. Hmm. fa yoo ko war a faj nag ñoo war a xool d' kii di ko dal lan. Hmm. pourquoi pas ñu mën a boole. waaw bénéfice lay doon de. bénéfice lay doon bénéfice lay doon. waa bénéfice day def fii. day def fii. am na ñoo xam ñu ngi dem ci médecin yi di jëli seen i traitement di ñëw mais ñu ngi am seen ci suuf. yoo mm-hmm. xam ne dañ koy jëfandikoo yoo xam ne ci leeru alquran lañ koy jëlee mm-hmm. mm-hmm. alquran mu ngi faj yàlla nee na waru nabdilu min alquran yi maa huwa shifa shifa garab yi nii ñu yàlla moo def ci nature bi doomu aadama yi li leen di faj ak ah, garab yooyu sax mooy comprimé yi bi xam boobu kii def ko comme ay comprimé bala ngaa ñëw mu def loola ay ay damay wax na ñu bari ci nit ñi li leen di dawloo hôpital yi du jëmmi faj bi ak ordonnance bi xam nga lan. analyse yi scanner yi waaw waaw waaw yooyu yooyu projet bu gudd boobu. Hmm. ak yu cher yooyu. nga xam rendez yu sori yi. ñu bàyyee ci ñoom yow luñ tuddee tënna leen bu ko wóoree ne bu demee hôpital baaraamam bi di métti rek balaa kii danañ rajo danañ def nangam lu mu néew néew balaa ordonnance pare mu perte cent mille cinquante mille mais kooku te amul lu mu lekk def. macha allah yoo xam naa ne bii di moom problème mu ginaar yi nga may waaw <laughs> ndax foog ñu xam est-ce que ginaar am na wala déet mu ngi noonu Abdoul Karim vraiment euh, xale yi gis nga di def ay gëstu yu ay gëstu yu am am am am solo dama wax ni dama koor toog rek ci ci plateau yi.

tey nag dañoo ñëwoon ñun chrétien yi dañu nekk ci njeexital suñu koor. Mm-hmm. fekkee ne cee waxtaan ñun wax ci suñu mm-hmm. xalaat ak moment yi lan mm-hmm. lan lay def ci askan bi. nga ne nga ne alxamisu tey bi mooy alxamisu. comme ni nga wax mooy ci bés la bés bi la yeesu tey eh, dajale woon yi raxas seen seen tànk. tey la nekk bés bu mag ci nekk bés boo xam ne ci la suñu yonent bi mm-hmm. nga xam ne ci moom lañ yaakaar mm-hmm. tey ak gëlëb mm-hmm. su ko wàcce boppam raxas ay tànk ay taalibe ngir préparer suba mooy dernier jour bi nga xam ne dund àdduna nekk donc loo xam ne gêne la gêne importance ci suñu diine kat parce que dafa nekk bés boo xam ne Jésus bu mu koy def dafa woo dalbeem yi

mu ne ko doo ma raxasal samay tànk parce que mm. yaay sama kilifa. Mm-hmm. mu ne ko Pierre xamoo li may def nii après sama pare nga koy xam. Mm-hmm. mu ne ko mukk doo ma raxasal samay tànk mu ne ko su ma la raxasul say tànk. Mm-hmm. kon yow dese ngaa set. parce que ku sangu ba set ku sangu rek jarul ngay raxas say tànk. sangu sangu ko. mais lii may def. dama koy def ngir yéen itam ngeen roy ci man defal ko seen akasa muy lu lu lu rafet lu am solo waaye xam na ni ngalax yi cohabitation bi muy jur ci diggante ñaar religion léegi man bala wax ci ngalax yi xam-xam ay leçon la yu ñuy tiir mhm. gis nga loolu muy wax ci Aïssa ibn Mariam mhm. alxuraan nekk mhm. macha allah douze personnes yooyu mu tuddu ñen ñi di tuddu lu ko ëpp moy mooy alxawaari yu ñoom la Seydina Aïssa waxon man ila Allah hmm muy dimbali ci sama mission ci yàlla qaala alxawaariyuuna nahnu ansaarullah mhm. ñooñu ne ko ñun ñoo lay accompagner ñun ñoo lay dimbali ñooñu lépp lu Seydina Isa am séddoo na ko ak ñoom mhm. mais gis nga yàlla li muy dogalee ci yërmande lu tax ko chrétien yi ak musulman yi mu tombé mu duggante mhm. te dinay am waaye duy gaaw xoolal yàlla balaa muy faratal ci ñun koor kooru ñii la ñu wax ba waaw faratal naa ko ci xeet yi jiitu am kutiba alaykum siyaam mu ne kama kutiba ala alladina qablikum kon yàlla farataal ci ñoom ci ñu woor ca nam leen ko digalee na ñoom seen bos ak ñun suñ bos duñ ci wut ragal yàlla. ragal yàlla. Mm-hmm. kon su fekkee kooru chrétien yi ak musulman yi daje na xanaa ragal yàlla. war naa benn ñu raxas tànku Seydina Isa yi mu doon defal ay taalibeem wàcc la leen di jàngal suuf. Mm-hmm. yàlla jox la ngay su yëkkati ko parce que dafa war a yéeg. ñu mm-hmm. ne ñu wan ne ku bëgg a yéeg dangay nangoo wàcc. man tawaadaa lillaahi rafa'ahu Allah ban kilifa diine nga gis guy ñëw di déedéet dañuy gis. waxuma daal di raxasal taalibe yi tànk. beneen bi ci topp mooy mhm. raxas tànk yooyu xaloon na alay ni la leen di jox mooy mhm. fa yàlla jaaroon ak Seydina Moussa mhm. bala bi ci des nii mooy àllaaxira lenn lu ci nekk ci ñaar yi dafa jëlal jëlal jëlal bëgg daraja jëlal bëgg rëy nga simmi ko comme ni ngay simmee say daal bu ca yam raxasal trace ya fa daal yi bàyyi ba mu set nga mën a dem ci sa borom subhaanahu macha allah loolu ba bisu tey jii ci suuf yàgg yi mm. loolu am mm. am am solo <laughs> moo tax Maguette Maguette kontaan na ndeysaan. waaw xam naa mm, keroog rek

jox leen aussi ab misaal. Mhm. nekkul moom da koo def ngir moom da koo def ngir ñoom nee ni ma leen ko defee nii ni ngeen ko defal seen i morom. Mhm. parce que ñoom ñoo gën a jege Jésus. Mhm. mu wàcc wala ni ma leen ko jàngalee na ngeen ko jàngalee seen morom. mu wàccee expliqué seen kaw mooy leen doole. ngir ñooñu itam. ñu des si kaw suuf si fa seen i loolu mu doon def. ginnaaw boobu bu mu paree ci loolu ci la fa seen reer ak ñoom ba dernier reer. ci reer bi. ci la toog seen bi ci juróom-ñaari mun na leen pourtant kenn ci yéen ñi nekk fii. Hmm. moom mooy war mooy war bu subaa. kooku defe naa mën nañu wax Jida. moom la léegi ci la toog ñu ne leen mais loolu nu mu mën a amee ñun ñu nekk fii yëpp say taalibe ñun ñëpp la gëm. mu ne ko si mon père balaa ngay xam sama wax ji balaa ginaar a sab di nga di ñetti yoon. loolu Pierre après la ko wax sax. Mm. bu ma paree ci loolu ba mais nangu teen wax ana am na ku jógoon ak paaka. Mm. ne man yàlla jaral nga ma rey sama bopp. Mm. mais ku bëgg ku la bëgg a livrer man ma joxe sama bakkan. ci la Pierre jógee. waaw ne ko man nangu naa dem ak yow kaso. ba ca couloir sax. mu ne ko Pierre defal ndànk mu jóg ak ak doole encore mu ne Pierre defal ndànk. Mm-hmm. man mën naa la koo wax. balaa ginaar bi du wax fajar. nga ginaar a sab fay di nga ñetti yoon ni xam nga ma. moo tax bi mu ko weddee ñetti yoon dafa jooy jooy yu metti xam ni waxi wax yonanti la waaye. Euh, waaw ngalax balaa muy ñëw chrétien dañuy nekk loo xam ne dafa am solo aussi bés bi suba balaa ngalax yi di ci ñëw. Hmm. yu bëri. samedi la leen di abbé li donc suba mooy vendredi saint. suba mooy vendredi xam naa sam si yaa ngi naan buur fu ma xam ne man Grand laa dëkk nag man simple laa màggee. waaw mu may xool rek ma ne ko man Grand laa màggee ko ñu maison blanche laa dëkk man ñoom cof ñoom ñakkee rek ñoom taa man ñooñu laa màggandool ñoom laa judd. wallaahi ñamdu kenn toogu ko ñu jàng xawaari yooyu dañ ne ko ndax sa borom mën na wàccil ñu fii maida taabul boo xam ne ñun buñ bëgg rek da ci ne hal yastatiu rabbuka an yunazila alayna maidatan min as-sama mu alerté leen ni leen ittaqullah ragal leen yàlla parce que lu mel noonu bu ngeen ko laajee te motalu leen xàq ya après mbugal moo ci topp ñu ne ko nuridu an nakula minha dañoo bëgg mu wàcc léegi ñu lekk ci pour suñu xel mën a mais Issa ibn Mariam dafa mel ni bu bu bu yonent bu yonent bu yonent bu yéeme woon laa. Euh, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. dafa laaj dégg-dégg quoi. bi nga xam ne dafa wàcc ci kaw suuf. am ndey mi amul bàyyi. sa parce que bépp dina am ndey am baay. loolu firnde ko ci. Mm. Mm. Mm. ma dolli la foofu tuuti xam-xam. gis nga yàlla ni muy dogalee mbiram. dafay dimbale ay jaamam. boo gisee ñun Seydina Isa mu marqué ñu lool lool. amul ndey. ci yaay waaw mu créé jëmm joo xam ne dana am ndey te amul bàyyi. di ko denc di ko denc di ko denc. Seydina Isa mi nekk avant yonent bi dernier prophète. mu def ko mu doon koo xam ne am na ndey. te amul bàyyi. moo tax mu ne inna masala Isa inda Allah. kamasali Adama xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fayakun. léegi nag foofu yàlla jaar ak Adama. jaar fa ak Xawa. jaar fa ak Isa kenn ku nekk ci nitu diini yi dégg-dégg ba nga cay am. waaw loolu démocratie maye na ko. comprendre nga mm. kenn ku nekk dégg-dégg ba mm. nag yow boo ci amee dégg-dégg ne doomu la. Mm. keneen am ci dégg-dégg ne kéemtaanu boobu mu sotti ci moom na ko sottee woon ci moom laa jëkk def na ko. def na ko Adama def na ko Hawa. def na ko def ko tey Isa ibnu Maryam. des ñu doon ñu naturel comme sallallahu alayhi wa الله اكبر على كل شيء قدير ما شاء الله مي نونو ما كان ني ديلا واخ جوي باك آه، لا فمن لا نيو ماتيل دايال وون سي وقتو جيخنا خا ديلا واخ بون فيت دا باك رك ميرسي ماي دانال جيست سوبا نيك بس بو خامل سي دافا ام سولو كوا موي موي با ما شول دانا نيه ناخ بيسو ندال اخ لا موم داي نيه نكو بالا موي واتي ني جيو موي كروسيفيكاسيون waaw mm-hmm. chrétiens yi nag dañ koy commémorer. Mm-hmm. trois heures dañuy mm-hmm. xam ne. man démb gis naa chemin de la croix démb la woon wala tey. suba la suba la war doon. à koy def treize heures ñi quinze heures maanaam ndax daj coono yam daan ne mu doon daj. ngir fàttali ko ko. ngir fàttali ko biñ ci wàccee nag après ñu commencé def ngalax ngalax yi waaw ngalax yi waaw ngalax bu am chocolat day moom man nam naa ko ak ak tuuti koko imam mu quoi muy image bu image bu rafet rafet boo xam ne man sama kër ma wàccee dama fekk ay bool ngalax am na ci njaago boo xamante ne que lënt ñoo màggandoo suñu yaay ñoom juddandoo jàngandoo màggandoo ñun tamit fi damay taxaw sama taxaw sama leen sama ngalax bi mu ne ma ana li nga waxoon na mu ko yónnee sama jëgu buy ma jox sama doom sama mel ne ko demal nga jox ko kii seen kii seen bàjjal la ndax sama sœur la imam cohabitation bu ba suur waaw waaw wa taamukum xillul lahum yéen seen tabaski ak seen nangam ngeen leen ci jox ñu lekk ba suur loolu yàlla waaye nag mm-hmm. ñun ak ñoom ñu jegee ñu jegee leen mooy yu ndaw mm. ndaw rek. Mm. moo ñuy mm. bi mu nekkee ci natt yooyu nga fan la ñu wutee ak mm-hmm. dañoo gëm ne dañ ko jàpp. daaj mu nekk solide loolu moo indi courant. Mm-hmm. ñun yàlla nañu ki ko waroon ba ñu koy fexeel. Seydina Aïssa mm-hmm. yàlla da koo. da koo mujj yéegi ka ko doon war nag mu jox ko meloo Aïssa gars yi ñëw xoolal macha allah léegi nga jàng gëm ko muy sa dëgg yàlla wax ñu lii ci alxuraan yi jàng ñu gëm ko foofu rek ngay fekkee ay wuti ñu nangu nañu Seydina Isa fexeel nañ ko. taalibeem mhm. ñenn mhm. nañ ko mais après finalité bi. finalité foofu la uti bi amee loolu moom ça se passe comme comme euh, maanaam comme toutes les grandes histoires Maguette looy tàggoo. limo ma dalon touba tassek signé an ah ngalax iba mom dina ñew ah wax deug yalla iba day jox ngalax parce que dafa contant wa wa tay tay dafa quoi sa xol dafa sedd quoi xol dafa sedd lima dalon touba la rek ma dem magal touba and ak bo may dakar mbacke mbacke li la ma waxati ci jésus ndeysan bu mu doon lek sax dama moy wo bala muy lek ana sama lolu day woné ah ñun julit ñu suñu suñu mbakk ñu ñu gëna mëna cohabiter moy chrétien soo demee soo demee suñu village tey alquran ne wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu mm-hmm. qaalu inna nasara mm-hmm. mu ne jullit ñi ñi gën a jeganteeg ñoom ci cofeel ñi leen gën a bëgg ci diine yi ci des mooy chrétien allahu akbar <laughs> <laughs> ndeysaan ndeysaan mooy sa lépp macha allah jërëjëf euh, Maker Coly ñu bàyyi la rek yow tamit nga dellu ci préparé ji nga laxi waaw xam naa ne yàlla leen yàlla nangul yàlla yàlla nangul yàlla yàlla nangul. Mm, mm. macha allah euh, mu ngi noonu imam dafa mel ni que l' émission tire à sa fin vraiment di jataay bu ama ama am solo boo xam ne xanaa benn laaj ak laaj toftal benn laaj kii nee na ban xeetu euh, listixaar moo gën a yomb ci jullit bi di ko jëfandikoo ci ay mbiram. julli jàng ca aay bu la neex. jàng ca loo man hmm. loo man rek baax ñii nag danañ digal ko yaayu kaafir ni bii ñu digal la nixlaas waaye loo man rek lay hmm. boo sëñ ma lee ñaari yooyu nga ne yàlla maa ngi lay tànnaloo mbir nii ñu jëm lan moo ci gën ci mën nga tànnal ma ko lii ma lënt nga leeralal ma lan lan la ci yiw nekk lu ci yiw nekkul nga sori ko bii mooy bi gën a simple bu gën a gàtt ku ne man ko. Hmm. boo jéggee boobu nag.

yooyu moom yeneen garaat la ci xam-xam mais bii daal mooy bi ñëpp bokk mën ko def ja naa fi laal ñaari rakkaam jàng ca loo man rek saa yi nga dégg ñu lay wax noonu boo ko mënul tibb du farat naa fi la moom loo man rek defal di bii nag dana la digal wala yàlla kaafi nga fii lixlaasi fii boo julee ñaari rakkaam yi yéene jàmm ko sa borom ba sëlmal nga ne yàlla maa ngi lay tànnaloo ci mbir mi comme ni ma ko waxee léegi làkk boo ko mën a waxee rek li saxaar macha allah ma la ca gën ci man soxna sa la oto la nga jënd la kër gën a voyage bi ñu bugg a dem يونت بي صلى الله عليه وسلم بنت صاحب بلا كو شانجي تي كرم تخولي كو في يوب غوفل دا دي استخاره باسكو خمو موتا سما بروم داف ني ليك ليك غير بغ دارا دي ورال الاستخار لا لي ليرال في لولو غاني دي تي دو كان ليك ليك غير امانه غين دي داو دارا فك لولو كان دي تي دو غاني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم منو كو فنجم من يين خام لين يالا خام والله يعلم وانتم لا تعلمون كن ريزوليوشن ني تانلو يالا امام لوي تاغور sant bu neex waaw waaye waaye bii moom bii waaw bu tey gën naa coq de coq na lool ah non mais Sams moo ñëw nag Sams ñëw nag macha allah. xaw sàmmal ñu suñu ngor hmm. mu ngi noonu seen émission aljumay koor Dakaractu di leen ko présenté ci koor gu nekk gis ngeen tey li ngeen fi indil ci ay rubrique yoo xam ni waxtaane nañ ko lépp di njëriñ kon ma àndoon ci ak équipe technique ki ji jiitu woon di Ousmane Diouf ànd si ak ñoom fadal euh, ci coordination ki xam mooy Samsidine Sané ñu di leen jox digg daje ba aljuma bii di ñëw sur Dakaractu